docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu lay dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM may fàttali kon yow yaa jiite service national de l' éducation et de l' information pour la santé du SNEIPS. laaj bu mhm. njëkk bi mooy euh, coow li juddu ci vaccin AstraZeneca ndax ñu bëri dañu jàpp ni kan am na ay jeexintal ci seen wàllu wërgu-yaram bokk na ci sax ay cas yu mujj góor suñu wax ni kon euh, gannaaw ba mu ko jëlee ba noppi dafa am ab crise AVC est-ce que ba fi ñu toll Sénégal yéen ñu ci yëngu mën ngeen indi firnde ci ñi nga xamante ñoo jot euh, ñàkku bi ba pare am ay njeexital ci wàllu wér-gu-yaram. waaw jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu di profité di nuyu seen auditeurs ak auditrices yëpp. Hmm. di nuyu waa kër gi yëpp. Hmm. Euh, di ñaanal suñu réew mi jàmm. bo bu loolu weesoo pour ñëw si sa laaj bi. dama hmm. li ma leen bëgg wax rek mooy wax nga dëgg temps yi coow li bare na ci xeetu ñàkk bi ñuy wax AstraZeneca te. coow li mu ngi bàyyee bitim réew. mu hmm. ngi bàyyee ko réew te jafe-jafe yi AstraZeneca war a am. bu fekkee loolu la xëy na boo jëlee fukki million ak juróom-ñaar nit yu ci jéem ñi ci ñàkku fanweer wala ba juróom fukk la ñu wax ne am nañu jafe-jafe. Hmm. mais ba tey jii nag amul benn euh, euh, étude scientifique bu wane ni jafe-jafe yooyu ci vaccin bi la bàyyee ko moo tax yooyu dañoo ne pour prudence. maanaam pour euh, dañuy taaxirlu xool xoolandi da vaccin bi la wala du vaccin bi mais ñun suñu réew fii. Hmm. Ah, euh, wax dëgg yàlla gisaguñu kenn koo xam ni ñëw nañu jàmbatal xeetu euh, accident yi mel noonu bi bi mu jëlee vaccin bi benn cas la ñuy wax ne. mooy dëmb mooy coow bi ñu dégg rek fan. ñu ne ñu ne nit ki def vacciné wu ba pare après mu def euh, li ñuy wax AVC accident vasculaire cérébral mhm. bon est-ce que vaccin bi moo ko defloo loolu euh, xamaguñu est-ce que dafa amee woon jàngoro ah boo xam ne moom ci boppam xamu ko woon waa këram yi xamuñu leeragul est-ce que dafa amee woon tension dafa amoon euh, problème cardiaque xamuñu da dafa amee woon diabète kenn xamul donc teel na tey pour ñu mën a wax ni vaccin bi moo ko defaral loolu mais li ma mën a euh, béral waa réew mi. Mhm. mooy wax leen ne euh, ministère de la santé ci mbirum vaccination bi euh, du tey sax du guléet day loo xam ni dafa yàgg nekk suñu ci suñu doxalin saa yu ñuy war a def ñàkk dañuy am comité bu ñuy wax ni comité de pharmacovigilance maanaam ñooñu ñooy sayto képp koo xam ne vacciné wu na bu amee lu ndaw lu mu yëg ci ñooñu lañ koy joytu ñooñu ñooy saytu loolu xool ndax euh, bokk na dara ak ñàkk bi ou uh-huh. mais tey jii comité boobu amul kenn kenn ku fa ñëw jàmbat fa ne lii ak lii ak lii moo ñu daal te suñu ndaw itam yi nekk ci hôpitaux yi ñu nekk ci centre de santé yi nekk ci poste de santé yi di ñàkk amuñu kenn koo xam ne ñëw na pour jàmbat leen loolu li ñuy jàmbat yi ñuy jot a daal mooy diw ne sama yaram fa tàng dama euh, dama lox tuuti ainsi de suite mm. ñu la jël leen dolu iprane wala ngeen jël euh, efferalgan wala par exemple bu mu mënta doon nga jël ko euh, mbir mi continuer donc loolu daal laa mën a tontu ci question boobu mm. wax leen ne tey jii Sénégal amagul benn jafe-jafe lu jëm ci ñàkk boobu. waaye gis nañu ñàkk boobu tamit daanaka dëkk yu bëri bokk na ci sax réew France daal nañ koy dakkal lu jëm ci campagne bi ngir kon jël seen i matukaay ndax yaakaaroon ni tamit Sénégal war na topp euh, boobule logique ngir kon euh, gën a jëlee matukaayam ci mbir mi. Eh, non gëwuma loolu gëwuma loolu parce que defe naa ñoom dañu wax ne dañoo euh, bàyyi nëgëndiku mooy maanaam dañuy xaar ah ba saytu ko bu baax ndax loolu la wala lool mais ñun boo déggee yaa ngi bàyyi dafay fekk dafa am euh, jafe-jafe bu nga nemmeeku. mais ñun amaguñu benn jafe-jafe lu jëm ci vaccin boobu donc euh, day vaccin boo xam ne wax dëgg yàlla tey euh, lu jege ñaata lay mën a wax plus de trente mille personnes mooy maanaam fanweeri junni doomu Sénégal ñàkk nañu ci vaccin boobu te amul kenn koo xam ne am nga ci jafe-jafe donc euh, wax dëgg yàlla amuñu droit loolu bu ñu ko defee rek ñu ngi yàqal suñu réew bu ñu ko defee ñu ngi sonal suñu euh, askan bi amuñu benn droit ne dañuy arrêté dañu war a continuer ñaax nit ñi ne leen gëm leen liñ leen wax wóolu leen luñ leen wax e ngeen dem ñàkk. kon fu ñu toll nii AstraZeneca moom rek la ñuy ñàkku ndax bële euh, Sinopharm bi jeex na wala. waa Sinopharm ñi ñi war a jël seen deuxième dose. ñoom ñoo nekk nii di jël seen deuxième dose Sinopharm mais pour première dose yi ñuy jël première dose fi mu ne nii AstraZeneca la ñuy jëlee seen première dose waa hmm. euh, tey jii euh, euh, ñuy waajal tamit ab ndaje bu yaa ci OMS kuréel gi ñànk wërgu yaram ci àdduna wërngal këpp ñuy saytuwaat AstraZeneca boobu lan la ñu mën a xaar ci liy tukkee ci dogal ci boobu la ndaje. waaw man li ma mën a wax rek mooy xam nga tey jii euh, kuréel boobu OMS defe naa ci aspect technique yi lañ mën a wax. Hmm. ci aspect technique yi waaye mais li ma leer te leer moom mooy nii euh, bon mënuma euh, prédire ñoom lan la ñu war a wax de waaye de gëm naa ni du ñu wax ni dàqal leen ñàkk bi dinañ wax continuer leen ñàkk bi parce que li ñu jot a am ci information sur le plan scientifique wóor nañu ni vaccination vaccin bi baax na. war nañ ko mën a continuer donc man de njort gu rafet laa ci am xam ni ñoom dinañ évaluer sur le plan technique et dinañ ñu wax ni eh, continuer leen vaccination. Hmm. docteur tey lan nga jàpp ni moom moo waral. Euh, vaccin AstraZeneca bi jur coow lu bëri lii ci àdduna wërngal këpp ndax am na li ñuul ci soow mi. wa loolu mënta ñàkk waaye xam nga sama position mayuma may wax ci yooyu mais li ma mën a wax daal mooy sur le plan technique Hmm. a ah, ci eh, xarala ak ci gostu ak ci jeexital bu am solo ci doomu aadama yi xam naa ne vaccin bi eh, baax na pour le moment war nañ ko mën a continuer waaye nag xam nga eh, àdduna moo demee noonu. Uh-huh. intérêt dañuy bare ah intérêt dañuy bare ku nekk di nga am fooy noo koy analyser mais ñun daal suñu analyse sur le plan technique et scientifique ah, xalaat nañ ni vaccin bi baax Hmm. ñu nemmeeku tamit wala bokk ay xibaar di fësal ni ah, variant sud-africain bi yagsi na ci ndakaaru loolu lan la mën a soppi ci xeex bi. waaw xam nga bu fekkee eh, xibaar boobu eh, dëggal nañ ko. du du soppi lu bare ci xeex bi li muy li muy indi rek moom mooy ñu gën a gën a contrôler suñu frontières yi gën a contrôler suñu euh, kii euh, gan yi dugg si loolu euh, am na solo mais aussi leneen lim mooy ñu gën a góorgóorlu ci takk masque bi ak raxasu ak dandante mooy li ñuy wax geste barrière mhm. nañ ci gën a góorgóorlu ah gën a góorgóorlu aussi ci vaccination bi defe naa loolu daal loolu lañ mën a def amul leneen lu mu mën a changé ci doxalin il faut ñu xaar nag mbir mi ñu dëggal ko parce que comme ni ngeen ko xamee depuis njëlbeen xeex bi ba léegi suñu laboratoire yi muy principal eh, muy euh, fële nu mu tudd Pasteur muy IRSF dañuy def ay séquençage séquençage moom mooy di wut ndax am na mutation wala amul mutation donc ñoo ñi ngi ci te ñi ay ñoo xam ne dañoo xarañ am ay jumtukaay am solo ay xaralaay am solo ak euh, ñoom seen bopp xarañ nañ ci liggéey boobu donc dañuy xaar bu ñu dëggal ñu ni variant boobu am na. bu hmm. amee ñu wasaare xibaar bi ci askan wi ne leen nag def leen lii def leen lii def leen lii pour moytu ko. Mm. waaw nemmeeku bi tamit Sénégal euh, jamono yi ñu toll ñu gis ni kon yëf yi wàññeeku na ci ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci doomu jàngoro ji waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo cee laale muy cas positif yi euh, loolu ndaxam xam euh, campagne de vaccination bi ñu sumb moo ci tàmbale am ay jeexintal. waaw teel na trop pour ñu wax ne ndax vaccination bi moo indi loolu. teel na trop parce que vaccination bi laata muy dem ba indi li ñuy wax immunité collective par la vaccination hmm. il faudrait que nit ñi dem ba am soixante dix ba quatre vingt pour cent ci askan gi ñàkku te àggaguñu foofu donc dina teel tey ñu mën a wax ni vaccination moo indi lool mais li ma wóor te wóor mooy mooy bu cas de décès yi wàññeeku ak nombre de cas grave wàññeeku rek dafay fekk nit ñi dañuy teel a jokkoo ak waa kër docteur nit ñi dañuy a dem ci waa docteur loolu la ñuy recours précoce am solo la mais leneen li moom mooy euh, geste barrière même bu fekkee seetlu ñu ni ñu bëri bàyyi nañ seen loxo mais am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di euh, observer geste barrière yi donc bu ñu continuer di def loolu boole ci di def li ñuy wax teel a jokkoo ak waa docteur wala teel a dem hôpital euh, dina wàññi kaay et te li may wax ci question bi tax moom mooy aussi épidémie noonu lay doxee épidémie day am waxtu yoo xam ne di jóg waxtu yoo xam ne mu wàcc léegi bu wàccee nag da ngeen di góorgóorlu rek bañ a bàyyi seen loxo bu kenn bàyyiwul loxo ñu gën a góorgóorlu rek wàcc bi day continuer mais bu ñu bañee loxo rek da ngay gis muy yéegaat loolu la ñuy wax recrudescence wala ñi ni koy tuddee ay vagues. Mm-hmm. voilà donc euh, nañu moytu loolu ñu gën a góorgóorlu rek temps tendance yi am ni tendance baissière bi ñu am ni ñu gën a góorgóorlu ba mbas mi jóge loolu euh, mu feggoog tamit euh, njiitu réew mi daal di yëgle ni dinañ fi jëlee état de catastrophe sanitaire bi ñu nekkee woon boobu ak léegi ndax loolu jàppoo ni risque la ci jamono ji ñu toll ci xeex bi. non góob moom mu nekk risque xam nga la am solo moom mooy damay wax ni mbas mi eh, du wérgu yaram rek mbas mi dafa am banqaas économique mu am banqaas sociale moo am bànqaas environnemental loolu yëpp boo ko jëfee eh, bu ci ne war ngaa xool nan ngay doxalee ak moom doone mbas mi lay topp rek ba rey économie bi doone topp rek ba am conflits sociaux yi nga war a indi parce que nit ñi nekk fii di étouffé duñu am lu ñu def de jaru ko donc da ngay xool ci levier yooyu yëpp nan nga leen di boolee ba mën a am lu ñuy wax le juste nécessaire juste nécessaire boobu nag moom mooy nga lever état d'urgence bi ah la neexee nga génnee ci lever couvre-feu bi mais gën a góorgóorlu gën a ñaax nit ñi ñu continuer di tàkk seen i masque ak raxasu ak dandante boole ci force de l'ordre ñu bokk ci di gën a ñaax nit ñi ñu def ko def naa loolu bu ñu ko defee wax dëgg yàlla boole ko ak vaccination bi mën nañoo am euh, jàmm ci mbir mi. ñu gis ni tamit Sénégal léegi ñu jege euh, junni doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi ndaxam ñu ngi toll ba léegi ci ñaareelu vague bi bu fekkee dëgg la ndax mën nañoo euh, njort ni ñetteel dina am. waaw xam nga mënuñoo dàq dara. xam nga mbirum mbas moom. do dàq dara mën nga am mën ngaa nekk ci ñaareel vague bi nga gën a góorgóorlu eh, sàmmont ak digle yi continuer vaccination ba feebar bi jóge fi mën ngaa nekk ci ñaareel bag bi bàyyi sa loxo tuuti ñu dem ci ñetteel eh, eh, vague loolu yëpp mën naa am donc mënuñoo dàq dara li ñuy def rek moom mooy gën a góorgóorlu wax sénégalais yi ñu gën a ci takk masque bi te loolu dama koy faral di wax malgré ñu ngi vacciné wu Hmm. tant que amaguñu immunité collective. Hmm. nañu continuer di tàkk suñu masque nañu continuer di raxasu nañu continuer di dandante loolu moom muy mën a suturaal sinon euh, troisième vague quatrième vague loolu yëpp mun nañ ci euh, bañ a mucc parce que tey jii boo xoolee lu xew Europe gis nañ Italie reconfiné nañ. Hmm. tey jii France dina prononcé wu ndax dañuy reconfiné ou pas donc ce qui veut dire que euh, wax dëgg yàlla te gis nañ li xew foofu rek xew na fi. Mm-hmm. donc nañu góor góorlu ah, euh, ba ñu bañ a agsi foofu bañ a agsi foofu nag amul leneen lu ñuy def lu mooy continuer takk suñu masque. Mm-hmm. lu mooy continuer di raxasu lu mooy continuer di vacciné wu. léegi euh, ban xayma nga mën a def ci campagne yu ñàkk bi nga xamante ne euh, toll nañu léegi ci ñaar ci ay bis ñu def ko ci Sénégal. waaw li may wax rek mooy rafetlu doxalin bi. wax dëgg yàlla bilan teel na mais tey li ñuy jot a seetlu. am na solo parce que boo xoolee vacciné nañu plus de cent quinze mille personnes mooy euh, téeméeri junni ak euh, euh, fukki junni ak ñeent ah doomu aadama ñàkku nañu jamono may wax ak yow nii te boo xoolee suñu plateforme bi tam li ci inscrire ëpp na cent soixante quinze mille personnes di jëm ah donc loolu rek won na ne sénégalais yi ñi ngi bëgg nañ ñàkku waaw xëy na tey ji wax ji indi na loo xam ne am na ñoo xam ne dañuy am jiixi jaaxa mm. mais loolu warul tax ñu bàyyi suñu loxo ñun dañoo war a continuer di sensibiliser population wax leen dañ ñëw vacciné en tout cas daal bu ma ci naroon def benn euh, taxaw seetlu euh, mën naa wax ni wax dëgg yàlla vaccination yi mu ngi jaar yoon mu ngi continuer ñi gën a góorgóorlu rek di sensibiliser population bi. ci mbir mi ci vaccin bi am na ñu ci gis doxalinu par parlo ñu gis ni ñi ko yellaloon dëgg yenn saay mu am ñeneen ñu ko jox rawatina ay kilifa. muy ñu féete ci ngóor gi wala ñeneen loolu ban tontu nga ci indi. waaw man li ma mën a wax rek mooy euh, li ma gis laa mën a wax euh, tey jii boo jëlee ñi ñi jot a ñàkku ah jënnul ci li ñu waxoon li ñuy naan cible prioritaire maanaam ñoo xam ne ñoo war a njëkk ñàkku moom mooy waa kër docteur mooy mag ñu am euh, euh, juróom-benn fukki at jëm kaw ak ñoo xam ne dañu am fukki at ak ñeent ba juróom-benn fukki at te ñu am beneen jàngoro ah, maanaam moo xam tension la wala diabète la wala euh, asma la wala drépanoog yooyu defe naa ñooñu ba tey jii kenn mënul taxaw ne dem naa am lii te nee nañ duñ ma ñàkk ñu ngi leen di ñàkk normalement léegi leneen li nit ñi di wax xam nga bay lancer benn mbir il faut mu am ñu joxe exemple il faut mu am ñu joxe exemple xam maanaam man mi bu ma toogee premier jour ñi gis ma may ñàkk ñi may déglu fu ne di ma gis fu ne dana ah docteur Guèye mii de moo doon wax nit nañu nangu ñàkku mais ñàkku na donc par conséquent war nañoo mën a ñàkk hmm. mais bu ñu toog gisuñu docteur Guèye ñàkk gisuñu professeur Seydi ñàkk gisuñu Bousso ñàkk gisuñu suñu ministre ñàkku gisuñu benn kilifa def ko mais nit ñi seen xel dina xaw a ñaaw hmm. voilà dina xaw a ñaaw donc euh, pédagogie boobu par l'exemple moom lañ doon wone rek mais bu kenn xalaat ne dañu ko jagleel ay ay ay nit ñi nekk ci nguur gi wala ak yooyu déedéet vaccin bi pour sénégalais yi la te sénégalais yi lañ koy jox incha allah rabbi yow yaay njiital service national de l'éducation et de l'information pour la santé du SNEIPS e docteur Ousmane Gueye Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa ngi leen di gërëm euh, di kontaan ci invitation bi vraiment di la ñaanal. Euh, seen euh, seen taxawaay rafet na. Mm. Euh, di leen ñaanal yàlla def jàmm seen boîte bi. Mm. yéen ñëpp ngeen am yokkute. incha allah rabbi. amiin jërëjëf docteur. jërëjëf.